Thank you. yaa ngi si jàmm moom Paco dama la soxla woon xam nga Paco yow yaa ma may Momo Dieng te instant bi man dama commencé bëgg Momo Dieng moom tamit dafa ma bëgg te il paraît que moom moom moo waxtaan nañ benn nijaayam ak benn frère ñëw nañ gis paa bi ba wax ak moom ne dañ ma bëgg ñaan si instant bi jàpp nañ date le 14 décembre lañ bëgg a marié wu et léegi man dama ne woon naa la woo laaj la sa xalaat instant bi parce que xam nga man samay parents yi ay kilifa lañ bi man daal xaw ma daal moo tax ma ne man naa la woo laaj la sa xalaat ba xam loo may xelal nga wax yëpp dëgg la dégg naa li nga wax mais man li ma gis si moom mooy yaru na baax na jullite na te foo ko fekk dee julli te man instant bi vraiment dama commencé bëgg mu moo jaar bi daal mi ngi noonu mais dégg naa sa wax. waaw soxna Mbacke waaw yow moom <laughs> macha allah rien à dire quoi parce que comme tamit man maa fexe nga xam Momo Dieng te nit ku baax la nit ku yaru la nit koo xam ne loo wax ci moom rek li nekk ci artistes yi nekkul ci moom wax dëgg neex yàlla man dama ko ne woon boo nekkul woon artiste wala ngay nekk mais comme moom jël na courage am yàggu leen moom mu ñëw xalaat ne war na la mën a takk jabar donc lu baax la li ma leen di ñaanal daal mooy que ngeen am sëy bu barke am ci njaboot gu barke yàlla defal leen jàmm musal leen ci cat seytaane ak balaa ba ngeen préserver seen mariage parce que mariage jeune yu bëri li koy tas léegi mooy ay affaire de tiraillement milieu bi mu nekk nag milieu showbiz la comprendre ko mais yow li la war nga nekk femme au foyer li la war nga def ko bañ a dugg daraw bise nga bàyyi ko moom mu liggéey parce que liggéey liggéeyam la et tout mais yàlla na yàlla defal jàmm kon donc finalement le 14 décembre ngeen jàpp ah kon baax na ndaw mariage bu rëy dina rëy de incha allah.